se perd tout se récupère mhm. tout se transforme lépp ci état d'esprit la ak mental mhm. te état d'esprit boobu ak mantal boobu la ñuy woo toujours les patriotes parce que réew mi foog mu changé ko waaye li ko war a changé xeex bu métti lay doon xeex bi nag lu génn di xeex di sànni xeex loolu foofu lañ toll ci jamono ji mhm. mais bu ñu dénkee réew mi xeex bi mooy li ñu woote ñun bi ñuy créer parti bi le don de soi pour la patrie mooy énergie boobu ñu am cawarte boobu ñu am engagement boobu ñu am pour suñu réew bëgg ba mu jaral ñu tey ñu mën a taxaw di xeex te xam ni ne mën nañu cee dal loolu yëpp ñu transformé ko dugal ko ci liggéey bi nag fu ñu suñu réew woo ñu xam ni liggéey la bu ñu ñee dañoo soxla ndaw ñi parce que autosuffisance alimentaire la ñu bëgg aménager des périmètres agricoles bu dul jeex ci vallée du fleuve wala fële ci Casamance nit mun a daan dooleem am ci suturam waaye def ko ngir réewam tam ñu am bénévolat boobu boo xam ne xale yi dinañu ñëw massivement bu ñu soxlee nit ñi pour des travaux d'infrastructure ñu def ko waaye bu ñu woowee nit ñi ci loo xam ne respecté discipline ak loi la. comme ni ñu gisee ci dëkku tubaab te ñoom waruñu ñoo gën bëgg seen ñu gis ko également ci ndaw la waaye loolu day commencé ci yow mi jiite nga joxe le bon exemple. parce que njiit foo bëgg a yóbbu nit ñi foo nga jiitu leen si. waaye bu dee dañuy gis ni yaa ngi déqal al al réew jël ay milliards yow ak sa njaboot ak say mbokk ba pare naan nit ñi kaay leen fay impôt wala kaay leen génn nettoyé bedd bi xam nga kenn du la ci topp bu ñu gisee ni yow yaay njëkk a jalgati yoon ki ànd ak yow bu jalgatee yow nga làq sa gannaaw ki ànd ak yow nga ne nañu duma est-ce que dañu dañu mën a topp say say ndigal mm-hmm. kon njiit dafa war a doon exemple moo war a njëkk a joxe exemple si fi mu bëgg a jëme nit ñi kon loolu mooy suñu défi ñun kon ñu ngi gërëm ñëpp lii waxtaan bu ndaw rek lool woon pour nit ñi xam naka la ñuy dundee situation bi ak période bi